wa père sa dom Youssou Ndour am combat am Boy say numéro 2 est ce que mën nga ñu wax lan moo tax ngeen jël combat boobu. Ah, do jël combat bi xalé yi dañu wara genn dañu wara am ay champion ta comme seen morom yaangi tollu ci genn il faut ñoom ñu genn len pour ñu mëna dajé ci kaw ndax bu dee mbër yu magi ku melni les ku melni Elton ku melni ne Balla Gaye 2 ñu ñu desaa genn nañu xalé yi ñom ñoo wara genn dem fekk seen morom nekkat mbeur fofu wa ñu aussi muy bëre adversaire bu dangereux. ci ci wàllu xeex bi nekk na adversaire boo xam te ne xeex bi macha allah techniquement tamit euh, adversaire bu technique la est ce que loolu yëpp yéen ngi yéen ngi wàcc ci côté yooyu. xam nga ñaari mbër yu ñu boole mën nañoo daanante loolu mooy combat comme li mu bëgg la kooku bëgg bëri ñaar bu leen boole foog kenn daan kenn daan loolu tax ñu boole leen comme adversaire la boo xam ne ñoo yem bëgg-bëgg ñoom ñaar ñëpp seen morom ñu ngi fayeku ay millions te it xam nañu ni war nañoo am ay millions dañuy daje ñoom ñaar kenn daan kenn toog. waaw bu loolu weesoo buñ xoolee Youssou début début làmbam mun nañ daroon enchaîner ay victoire combat am yëpp mu koy aborder avec la manière euh, mu démarré nag làmb ku ci mel ne ay ñoom rek te tey ñu xool ñoom niveau bi ñu nekk mu dem ba ci biir mel ni Youssou dafa am benn break benn rupture tey loolu ban jàngat nga ci def non mennum Diène Kairé rek la te wërsëg du yemuñu nit ñi duñ jógandoo même at nim nit ñi màggandoo wuñu ñii dañuy màgg taxaw yem fa ñii di màgg nànk-nànk ñii di jóg nànk-nànk bu fekkoon nit ñëpp dañuy jógandoo kon mu kii soo gisee mooy combat bii ñaari mbër booy ba daan fii kii daan fii duñ leen di boole pour ñu mën a daanante kii daan dem continuer dem. waaw ci kaw loolu am na ñuy wax sax ni père boo xoolee adversaire yi muy jëlal Youssou dafa doon adversaire yoo xam te ne dese nañu am tour ci làmb yow lan ngay tontu ci loolu. man jëlaluma ko combat de dafa am ménagère ku koy engagé keneen ku dul man maa ngi carte ménagère mënoon naa ko engagé xam nga nit ñi ku xamul mooy wax rek Youssou ñooñu bu ñooñu ay morom lañu dafa leen mag wala dafa leen dàq ba loolu def lu ñu nan laa ko jël combattre engagé wu ma ko Youssou mosuma ko engagé bu ne mbëreeg daan na engagé Balla Gaye 2 dañu wax kii warul bëreeg muy bëreeg Bathie Seras dañu ne warul bëreeg moom muy bëreeg Boy Sey dañu ne warul bëreeg moom muy bëreeg Saloum sax dañu ne warul bëreeg moom nan la mbër di bëree yow ko wax koo man rek ngay bëreel déedéet da ngay bëreel say morom soo leen mënee booboo gën a yomb loolu moo leer waaw père bu loolu weesoo ñu fort yow bëy ni am na blessure est-ce que yow blessure boobu mi ngi koy traité comme ni mu waree. kan moo ko am. Youssou. yëguma loolu moom. ah dañ ko jël dañ ko jot comme information. daara jotu ko yëguma ko daal non gis naa ko tey suba ba may xëy si gisaar waaye gisuma lu ko jot daal moom koy xanaa dañu jàppale Balla Gaye bi si combat bu mu sotti ñoom ñu resté fi liggéey li ñu war a liggéey waaye gisuma blessure bu koy te entraîné.